moo tax sëñ Moustapha si responsable moral Moustarchidina wal Moustarchidat au passage maa ngi koy ziyaare bu baax di ko nuyu di ko ndokkeel wax nañ ma yu rafet yi nga xam ne wax na ko ci délégation bi ma fa yebaloon tabaarakallaahu ñu bari di ma woo di ma ko wax ak mbégte ba mu ca am ak contentement bi mu ci am moom Serigne Moustapha moom daf ma bëgg te yàlla tax man maa doy waar rek bañ koo ñuuxu mais daf ma bëgg te yàlla tax délégation bi ñu demoon al amin sow ah, yow danga nga ah, ana al amin ah su ko defee nag yooyu ñu ngi ko ñu ngi ciy sant yàlla bu baax waaw moom laa wax imam Moussa imam Moussa nee na sëñ Moussa Moustapha daf ci kontaan mu ne ndax nee na géej na la gis depuis grand théâtre waaw ma ne ko ah ne ko damay dox rek waaye su ma sañoon weer wu jot ñu gisante maag moom loolu nag sant yàlla la sant yàlla la ñu ngi koy ndokkeel bu baax Serigne Moustapha ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko ñaanal yàlla kër maamam alaaji Malick yàlla bu ko ci kenn ëppale yàlla bu ko kenn ëppale ci kër maamam alaaji Malick ndax sagu alaaji Malick la de sagu kër Seydou Hadj Malick la beneen bi wax naa ko keroog ay mbokk ma ne leen may feet seetaan benn vidéo maag oustaz Abdou Aziz Wade bi ak Aliou Gaye ñoo ko doon seetaan ma xool ni Serigne Cheikh toogee confort bi ko sëñ Moustapha teg ah lees bi Serigne Cheikh am escorte bi garde yi organisation bu rafet bi nit ñu civilisé yi tant bu dal bi ma ne waaye lii ku ko defal sa baay sax bu sa baay doon naan sàngara nga am dara waxuma la ak sa baay di xutbul fardul jaami nga defal ko lii yaakaar ni sëñ Moustapha dina des ginnaaw ca kanam ba yowmal xiyaam kenn du ko mënal dara man maa la ko wax dama ko seetaan sama xol dafa sedd mais nga gis Serigne Cheikh ni mu nekkee à l'aise ni muy wax kenn jegewu ko sëñ Pape Malick nga toog na le sëñ Moustapha ngi toog na le Baye Omar Samba ngi toog na le ci ginnaaw mennum Serigne Cheikh ci ngandum taabul boo xam ne toll na ni espace bi daanaka muy jaayu nu ko neex mu wóor la ni kii ile est fier de son fils Serigne Moustapha ku ci amoon doom ju mel noonu doo wax dara de nit ñi dañoo soxor rek te bon man xaw ma lu tax Sénégal ñu bon ku ci amoon doom ju la defal loolu danga naan pat nañ waxante dëgg ñiy wax ñëpp seen doom yi amuñu ko waaye nit da koy yéene lim am sëñ Moustapha lim mën ci réew mi ak lim fi mu am kenn amu ko man maa la ko wax mos nga dégg annonce ñu ne sëñ Moustapha war na def gàmmu barab sàngam wala conférence barab sàngam doo ko dégg mukk fu am conférence dañuy mel ni ay malaak da ngay jékki-jékki rek gis leen ñu fees dell ci barab bi comme ay malaaka doo xam fu ñuy jóge walla déet du man maa ngi nii leven vingt le vingt le ñëwagul maa ngi nii wax ba xotteeku ne waaw waaw man sama bopp rek laa koy wax balaa ma yox kenn du le vingt et un laa bëgg ñun ñun ñëpp ñu weex te ñoom fu ñuy dem na ñuy weex ba mel ni ay malaaka amul annonce amul yëgle doo ko dégg ci rajo doo même télévision Moustarchidina mi wala Moustarchidaat muy Mourchid TV doo fa dégg seen annonce te su ko neexoon mu ne sama télévision la dama ciy def samay publicité man maa ngi nii sagaru télé bi ma am rek publicité mu may xaw a rey mais nit da koy nangul li ko yàlla may sëriñ Moustapha li mu am ci réew mi maa la ne kenn amu ko fii ku fi bëgg say taalibe ñëw lu ne dang ko daj maa la ko wax lu ne dang nga ko daj pour say taalibe ñëw léeg-léeg sax woo responsable bi mais sëñ Moustapha du woo kenn seen moniteurs yi seen ba Europe nag laa la wax foo mën a dem ci Europe ñoo gën a organiser ñoo gën a takku ñoo gën a am pas-pas ñoo gën a discret na ñëpp def ni moom billaay bu ñëpp defoon ni ñoom diine ji jag amuñu bruit te luñ bëgg doxal ñu ngi koy doxal sonaluñ kenn wala déet sonaluñ kenn luñ bëgg a def ñu ngi koy def doo leen ket doo leen dégg ñu yor këll ci mbedd mi di di di intervenir interpeller nit ñi doo leen dégg ci dara te luñ soxla mu ngi dox sëñ Moustapha moom moo gën a jafe malaaka moom gis malaaka moo gën a gis yomb gis gis malaaka moo gën a yomb gis sëriñ Moustapha waaw loolu damay ne ku ko sa sa doom defal sa baay billaay bu sa baay doon naan sàngara sax di nga am dara ci yàlla waxuma la ak sa baay di xutbul fardul jaami nga defal ko lu toll noonu ba xolam sedd ku bëgg a ne doo tedd du dëgg man maa la ko wax sëñ Moustapha ba yowmal xiyaam day tedd ca kanamu Cheikh na Tidiane ca kanamu yonent bi mooy njëkk a dugg bu dee fonk fonk na baayam be mu jeex takk lu mu am jox na ko baayam lum mu xam wax na ko baayam lu mu am defal na ko baayam ba fii ma toog di wax ak yow nit ñi nag booy wax ci nit dañ naan dafa am lu mu ko jox sëñ Moustapha gëñ naa ko gis ca Grand Théâtre boobaak léegi ñaata at war na ma trois ans ca grand théâtre laa ko gëj a gisee donte nag keroog boqal na ma waaw boqal na ma keroog waaye ba may waxit yàllaa taxoon may wax bañ génnee la ma woo ci oto ma foog ne lu ne la may doye mu naa ma yow dama laa gëj a gis de dama laa mere ndax dama laa gëj a gis damay wax Moussa Gueye ba tàyyi mu naan ma Chérif tukki nag dugg na fële dem na fale yow sama jarbaat yaa ngi may bëgg a jaaxal dama laa gëj gis naa lay gis ma ne ko incha allah mu présente ma soxnaam ne ma kii sama soxna la ñun ñett rek ci oto bi bi ma génnee tuuti ñu lekk ma keroog mustarshidina yi ndax li ma dugg ak Serigne Moustapha ci biir oto bi wallahi tuuti ñu am na benn xale bu jigéen moom da doon say bay crise nee na man maa dugg ak Serigne ci biir oto bi ne faw day barkeelu ci man man mi dugg ak Serigne Moustapha ci biir ci biir oto bi gars yi di ko téye muy say bay bay lox waaw woy sëñ Moustapha ngi woy sama ndey lu ma defal yàlla bay gis sëñ Moustapha xam nga façon cofeel boobu yow joxo ko nit ñi waxoo ko nit ñi jëndoo nit ñi ñu soppee la doon la ngay xam ne mbiru yàlla la mbiru yàlla la sëñ Moustapha li mu am yàllaa ko ko defal yàllaa ko ko defal nañ ko ko nangul nañ ko ko nangul tiijaan yëpp nañ ko ko nangul rawati ñun ñi aju Tiwaawoon nañ ko ko nangul billahi wal bi man dama kontaan bu ma gisee Serigne Cheikh ci conférence yi man léegi laa koy toog di ko seetaan di xam nag porté bi di xam porté bi nga gis Serigne Cheikh buy génn doo gis ku ko déranger ni gars yi di ràngee bàyyi ko ba dugg ci otoom da ngay yëg ne Serigne Cheikh mi mu nga ca yàlla moom te dara xewagul il est fier loolu ku ko am da doom ju mel noonu boo ko amee da ngay fier ci moom Ah, yal na fi yàgg ci wéruwaay sëñ Moustapha nit ku baax la nit ku baax la teewul na ci awoon ñëpp baax nañ waaye sëñ Moustapha baax na de waaw baax na de sëñ Moustapha baax na de waaw ci awoon ñëpp baax waaye billaay sëñ Moustapha baax na de waaw